École Badarassar, c'est la première école de Mbour. Aujourd'hui, l'ouverture, les enseignants sont sauf enfants qui ont fait congé de maternité, qui a fait fièvre. Les élèves sauf 10 donc 10 ans absenté donc sur le plan fréquentation vraiment ok c'est bon santé yàlla maintenant sur le plan matériel il y a problème parce que a jafe fait yu bari ça. muy ci côté gel bi à côté savon bi Une bouteille de savon, un mataar liquide et une bouteille gel Et des masques on avait euh, annoncé trois masques par élève mais il nous jox deux masques par élève ci donc problème au masque posé ou problème le euh, gel ak savon posé ou non. mais amuñu problème mu ndox waaw lave-mains yi ñuy utiliser sant yalla, dafa fekkoon ñun ñu am dès le début du Covid nous ci lañ jël distance yi dem ont lave maintenant il est là présent. Nous aussi ils nous avaient appuyés. Nous, nous les anciens de l'école nous, nous jàppale Madarbi, ci Madar le club le club des randonneurs voilà donc nous euh, dul woon ñoom daal làmbaay liñ ci gis waaw loolu mooy li ñu seetlu fi ñu toll nii li ñu wax nii maanaam seetlu nañ nii li nga xam ne moom la ñu tënkoon ak nguur gi ci wàllu jumtukaay yi war ngir ñu mën a doxalaat classe yi na mu waree dajewul boo jëlee mbirum masque yi matewul wul ñu ko won manam jangale kat bu nek ak élève bu nek wara am ñetti masque dajewul bo gee également mbirum ndox mi waxna la ñetti école yo xam fi Mbour pour le moment japp amuñu ndox muy école Nicolas Sanko Faye école Tafsir Demba Sall école Bay Deuk fiñu toll ni amuñu ndox école biñu nek ni di wax ni muy Badara Sar mais Ben gel lañ fi indi ak ben madar te école bo xam amna am lu mat juróomi classe CM2 lool xam nga ni jaaduwul mais également voir yi amul Ben mo fi ñewon mu nga yam inspection yi fi nek ay panne yu fi tek la donc ak yeneen yu mel noonu moo tax daal ñu jàpp ni li am fii daanaka moo am fépp maanaam kon li nga xam ne moom la ñu euh, jàppoon ci tënk ko te mu war ngir demarage bi maanaam dooraan jàng bi mën a am dajewul kon mën a jàpp ni fi ñu toll nii li ñu gisagum moom bu ngi doon mayee ci wàllu jàngalekat ci ak élève dañ naan daal situation yi fi mu ne nii dafa médiocre maanaam médiocre daal la ñuy wax maanaam médiocre nag boo gisee mooy trois sur 10 kon des na lu bari ngir ñu àgg fañ war àgg ñu ci profité nag di ñaan encore une fois gi di ñaan autorité territoriales yi maanaam collectivités territoriales yi ñu jàpp ci ngir li nga xam ne am na ay manquement tey fii ak ajjuma wala altine mu mat ngir ñu mën a yeggale li nga xam ne moom la ñu tàmbali ba tax xëy na li ñu doon ñoom bañ muy ñàkkaane bi ñu mën ko am ci condition yoo xam ne vraiment ñëpp danañ gis seen bopp. looloo jaaxal Sénégal gépp gépp maanaam lan moo tax nguur gi ŋànk ŋànk force ne par force dana lubbil daara yi loolu ñëpp la ëlëb ñëpp la jaaxal fa mu tolloon néew na lool par rapport ak fi ñu toll tey jii ndax fi ñu toll nii fi la day ëppee ñi infecté fi la ëppee ñi nekk sous traitement fi la ëppee waaw kon lu tax mënuñoo kon xaar ba mu xaw a tane ni ko jàngalekat yi proposé woon waa sa weeru sàttumbar kon ñàkkul ni ñoom benn dañ ne kat année blanche dis na année invalide dis na def nañ ci déjà alal yu bari kon fokk ñu sauver année bi benn ñaareel ba am na ñoom ay partenaires ñoo ñu lënkalool ñuy wax ay partenaires techniques ak financiers xëy na wax nañ leen ni fokk ngeen organiser lu mu bon bon examen yi te fexe jàllale xale yi ndax li ñu defoon ci alal ci wàllu bañ a neen ñetteel ba ñàkkul ni ci ñoom également am na ci seen doom yoo xam ne amoon nañu lu ñuy wax préinscription ngir dem ci université yu mag ya nekk Canada wala France wala États-Unis ko te te fokk loolu am ñu ne kon fokk ñu ubbi école yi loolu lañ njort ni moo tax gars yi ubbiwaat école yi waaye ci wàllu wér-gu-yaram wax dëgg yàlla lañu gis booba ak la gis tey xel xalaatul woon mukk mukk mukk ñu ubbi école yi ci weeru join bi ñu nekk euh, muy loo xam ne lu ñu lu ñu lu ñu la ndax la ñu gënaloon mooy ñu def ko ci weeru sàttumbar. Euh, comment